première université d'Afrique occidentale dégg nga loolu nam lu rëy lycée yi mu yokk ubbi université na Mahtar Mbow yeneen du Sine saalo ak yeneen ak yu ne euh, boo demee comment euh, brigade gendarmerie Sénégal dafa gën a bëri police yi gën a bëri. et la sécurité. mais des na mais parce que foofu des na parce que bande yi dañoo bëri ay façon nañu opérer man bu ma ñëwee man du ma du ma dama leen di massacrer moi je te l'ai bari na ay voyous la racaille je l'élimine non awma ci problème yéen xam ngeen sama fulla doo tëj. damay tëj tëj yooyu ma ah, éliminé yow ba tey waxoo tëj yow rey rek ngay non waxuma rey de. dama ne ku rey ah, ñu rey la dafa ndànk rek ku bëgg a rey ñëw ñëw dugguma astu dama ni université bu leen fekkoon ñuy taal dama leen di rey ñu fekkee ñun ñuy ñuy taal doo leen ay bal ñu able li ñu jàng en droit mooy la légitime défense d'autrui et des biens. bu fekkee ku bëgg a rey Astou Dione. ah non non non prends une autre boo bëgg ko rey Fatou Ndiaye. ah mais donc euh, damay exemple rek concret du ma nangu ñu rey la kon may taxaw rey kooku yoon may na ma ko. yàlla buñ fa egg. fi ñu toog nii bu ñu ñëwoon ak pistolet man am naa droit jël sama pistolet su ngeen sama poche dóor ko ko bala may fi ci mu dee loolu la yoon maye dañu jàng en droit ñu ne en valeur absolue. la vie de la victime est supérieure à celle de l'agresseur ki ñëw pour agresser bakkanam du jarutu dërëm. ñi nga xam ne ñooy. am na droit éliminer ko ndax bakkanam a mhm. ko am doole. loo prévoir pour ñi nga xam ne ñooy luubal alalu askan wi. ñooñu du ci balken kenn ndax nag loolu moom crime bu metti la li ñëpp bokk nga daw jël ko yóbbu ko yow criminel nga astu ndax yow bu fekkee ne ñi ñu ngi xiif ñi war a fajo amul luñ fajo ñu ñu ngi war a jàng amul luñ jàngee nga jël lépp di ko dëriix te yow ba ba ngay dee loolu a koo lekk yow ku soxor nga ku bon nga sa place mooy prison à vie et puis dama yokk peine yi ëllëg incha allah. est-ce que gis nga loolu ci régime président Macky Sall. ah loolu laaj la justice ba defal ay statistiques. Ah, xamu ci dara mais maître nag mënuñu. mais man man non non vous nekk ci gouvernement Macky Sall. mais yaa ngi li xew. ma ni comme ni ngay gisee ñiy taal. yaa ngi gis ñiy détourné. wala boog ñi ñu koy ji parce que ñi ñu dénk xaalis bi sàcc ko. Hmm. du ma xëy gis xaalis bi. du ma xaalis bi jàll sama loxo pour ma contrôler ko te bu ñu ko lekkee wala ñu ko dépensé du jaar ci man dama ciy maandu et puis y a la présomption d'innocence kon bu ñu déggee diw lekk da temps rek comme ni ñu koy defee fekk ñu yàq deram nga ne diw yàq na walla sàcc na attention daneen diw jël na milliards jël na deux cent milliards jël na ci Covid bi lii est-ce que dëgg la. est-ce que noonu la demee y a la présomption d'innocence fas yéene fas nga tegaat benn euh, benn kër boo xam ni buy xeex mbirum ger wala da ngay def continuité ci li fi xewoon ci li fi am ba am na Cour des comptes am na IGE yaa yaa Macky yëpp ba pare mais souvent dañuy douter un peu y en cause y a le parquet financier bi parfois ñu ne dañuy mettre en question leur efficacité est-ce que même euh, li nga am même gis-gis nga am ci loolu amul lenn loo xamante ni peut-être di nga ko apporter comme réforme gis nga Astou Sénégal daa bëri waxkat te xamuñu dara amul benn mécanisme booy teg ba tax ko bëgg sàcc du sàcc loolu tëj sa kër barricade ko am na sàcc buy xalaat yan moment lay ñëw nga xam ne kenn nekk ci kër gi wala voyagé nga mu ngi géttee ba ba jël sa oto ak say jabar ngeen départ mu daal di ñëw daj daj sa kër am na ñoo aussi jox la bu ñu dénkee ay milliards il foo ñu sàcc bu boobaa ñu jàpp leen tëj leen rek waaye mënoon ni sàcc du ma sa am. wala rey du ma saam mais ku rey ñu rey la comme màkk fa laa jóge nga yëre màkk bi ba sol donc di barkeelu ci màkk ci màkk laa ko jëndee mm. alors dama ni la gis nga ni euh, sàcc bi moom ala kulali mën a ko tere sàcc mais na ko dóor dóor yoo xam tëj ko tëj boo xam ne ëllëg kenn ko bëgg a def ni moom dana jaaxle tiit ni ay buñ ma jàppee tey trente ans lañ mën a tëj dama yokk peeni sàcc ak détournement ba 30 ans 30 ans boo ko tëddee nga xam ndax milliards yi sàccoon doo génn pour am temps di ko di ko lekk je serai intransigeant réew mi du mën nangu kenn lekk ko dama bëgg mu jëriñ réew mi dem ci doomu réew mi xale yi am liggéey ma mën a teg suma programme de gouvernement et c'est extrêmement important. mais xale yi amuñu liggéey ba tey de ñoom ñu ngi kaas ba. xale yi même France amuñu liggéey loolu tax Marine Le Pen am doole France dem ñaari yoon second tour. maître lu xew ngeen comparé. dama ne àddina Italie ak Espagne ñu ngi dàq nañ ñi ndax amuñ ndax amuñ liggéey réew mi dafa am crise mondiale crise économique mondiale depuis coronavirus bi ak guerre ak Russie le monde est en crise y crise économique mondiale. populiste yi Sénégal yi ci la jaar daan oui man bu ma ñëwee ñëpp am liggéey loolu fu mu nekkee dëgg fal leen ma sama sama projet ban projet ban projet. kon munu munuñu. far projet boo xam ne pour nax xale yi xale yi dof yi topp ci benn ay xar. munuñu fi teg lenn lu mën a tax ndaw yi jot ci. liggéey ak quoi sama programme dama ni dans chaque département man Alaaji Diouf avec les conseils de celui qui a inventé le crédit bail qui est décédé jox na ma éléments yu bëri muy Lucien Pfeffer qui a été président de sept banque de France qui a gagné deux procès le président Giscard d'Estaing à l'époque président de la République française mon ami yàlla ko yàlla yërëm Lucien Pfeffer bi ñuy discuter sama programme loolu yàgg na de ba ma ba ma programme pour nekk le moment venu ma def ma candidature dans chaque département astu danaa fa créer benn usine donc de minimum cent nga jël ay ay milliers de jeunes dans chaque département ñu xool ba du usine moo baax ci département bi mën a absorber jeunesse bi parce que li ma jàng ci marxiste man marxiste la ñoo ma formé communiste ñoo ma formé mooy la classe ouvrière est le moteur du développement classe ouvrière cest réew mu am ouvrier yu bëri tool yi mbéy bi dinañ ci def lu bëri kon kon yow bokkoo kon bokkoo vision ak président de la république. ma laaj ma sama vision rek bu ma tardé euh, dama ni. li ma li ma lay laaj ci orienté mooy département bu ne ah indépendamment ma def. donc damay bi ma di la expliquer li man ni may vaincre chômage bi mooy département bu ne bi ma ginnaaw moo la ni France Russie yeneen pays dañu am problème mu chômage ko am. waaye taxaw fi mel ni Macky saal boo fi indi chômage loolu loolu naa feq la ak war lu dëgg c'est ça le populisme et le mensonge éhonté c'est général c'est mondial mais ma ne nag man dama am ay solution yoo xam ne maa ngi Lucien fay dañ ci liggéey ay at d'accord ba donc département bu nekk danaa fa samp benn ngandam usine boo xam ne ay milliers d'emplois lay jël mhm. xale yi di xëy di liggéey jigéen ñi di xëy di liggéey dana wàññi bu baax a baax ñi ci des dem ci tool yi ñu ne ay tracteurs yu doy ñuy transformer produits yi ñu exporter vers lu l'UEMOA la CEDEAO pays yi ñu wër ñu nekk champion. ba parrainage bi du bloqué loolu lépp. toute cette man maa ngi gën a xale bu ndaw bi nekk Ourossogui xam na El Hadj xam na ni c'est le meilleur bu xeex jotee. mooy Jallo Bandi c'est une de popularité. wala popularité bi ma am moo tax ku ma ni ñu may oo ne gis nga téléphone bi du noppi sama ñaar téléphone kar kar kar kan daa nga woo yéex nga ko def. <laughs> ñun yow la ñu ndax da am fulla di ko am fulla moo yore Sénégal. te yow dañ la bëgg ndax da nga yaa ngi xeex tu es l'homme du 23 juin da nga am ay preuve yow ñëwoon rek naan damay laaj réew mi da nga yaa ngi xeexal sa askan ak sa réew. merci beaucoup jëlee réew mi xam nañu am nga yërmande te am nga fulla yërmande ak fulla la ñu ci nit war a réew gars yëpp kandaay maa leen mën maa leen ëpp fulla ëpp leen fële gën leen populaire nag foo dem Sénégal El Hadj Diouf ñu ne eh bul dara Kouthia. même mu ngi teg El Hadj Diouf mu koy invité donc El Hadj Diouf moom mooy ko ñëpp xam. sur le terrain lay jaajëfal euh, voilà di la remercier ci sa teewaay tey moom euh, tàngul comme la dernière fois. <laughs> merci beaucoup mais neex na di la waa neex bon on laisse l' appréciation aux merci beaucoup di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekk maître El Hadj Diouf le président du parti euh, PTP ma la yow merci voilà allez-y ah, rapidement waaw parce que aussi débat bi neex na neex parce que laal nga fi war a laal. Hmm. donc comme yow rek ni nga mel rek xam nga yow sans détour mhm.